kaddu yoo xamee ne jotoon na koo yëkkati moom Maître El Hadji ay fan yu néew rek dox suñu gi mu nekk bis bi nga xamee ne Serigne Touba moo waxoon ngir ñu santale ko ci boromam Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi fi nekkal Serigne Touba daal di koy woote ngir taalibe yi màggal ko kii di Maître El Hadji Diouf ay kaddu yoo xam se nag jot na ko cee yëkkati taalibe yi di ko ñaawlu bu baax a baax di xam ne ne mënoon na ko waxee ci geneen fànn gu wuteeg ni mu ko waxee kaddu yooyu de bi ma ko déggee métti woon na ma lool waaye ba ma ko xoolaatee méttiwu ma ndax moom yorul dara yi sëñ Touba. kaddu yooyu de ñun de duñ def lu dul maanaam di ko ñaawlu waaw kàddu yu ñaaw la waaye nag ñun moom ñu ngi sant suñu jàmbaar ji nga xamante ni tey jii nii lii lépp moom moo ko waral muy màggal bi waaw kon nag amul kenn koo xamante ni war ngaa yëkkati yenn kàddu yoo xamante ni dina tax di euh, dellu ginnaaw suñu ngëm wala gëm-gëm gi ñu am ci borom Touba ñun Serigne Touba rek lañ yaakaar moom rek lañu gëm waaw. tey jii suñu bakkan yi sax bu ko laajoon tey ñu jox ko ko waaw kon amul kenn koo xam ne mën ngaa gàllankoor lenn ci suñu màggal gi moom gis-gisam la am ñëw tuuba moom la concerné ñun waa Touba ak ñeneen ñi war màggal si ñun loolu suñu yoon nekku ci daanaka du jar tontu ndax euh, da ci am ñooñ euh, yonent bi ko ko mu mujj jamonoom lu nekk da ci am ñooñu ay yàqkat lañ kàddu yooyu nag bañ ko déggee ñun jaaxal nañu en tant que taalibe euh, donte moom dafa nekk nit ku siiw bu koy wax tamit mënoon na ko wax ci yeneen méthode yoo xam ni peut-être xëy na euh, maanaam du ñagas euh, ba taalibe nekk ci Facebook bi wala ci ci internet bi di ci wax yeneen comme moom taalibe la ca kilifa la ci réew mi ca tamit am na maanaam dayoom egg na foo xam ni bu waxee dañ koy déglu parfois dañ koy bàyyi xel kon moom waroon naa mën a waxee neneen donte day sensibiliser nit ñi wax leen ñu moytu feebar bi wax leen ni feebar bi am na mu waxee noonu mais pas ne mu waxee ne. parce que nee mu waxee ne ba pare wëlbatiku ni taalibe la murid la ah man de gisuma ko man sama sama xalaat laay wax de. ñenn ñi daal di jàpp ne kàddoom yooyu du yàq dara su suñu ndax sëriñ ni mu ko santaanee dinañu ko defee noonu. bu ñu woowoon ci leneen lu nekkul corona sax dañ koy wuy waxuma laa nag muy màggal gii nga xam ne ndigal la da ko joxe woon ndigal ni nañ ko ko santale suñu borom ngir may gi ko ci suñu borom defal ni heure bu ñëwatee na ngeen ma ko ci santale li dale ci ginaar ba ci gileem bu ci kenn xeeb dara bu ci kenn yéem dara kon bis boobu ñun jaral nañu lu ne donte dañ ciy dugg comme ni ko sëñ bi waxee rek ñun buñ ci dee tour deret sax jaral nañu ko ñun ak bis bi luñ ci mën a fekk rek jaral nañu ko parce que ndigal la te ndigal moom caabi la bu ëppee du tijji bu manqué du tijji. ñun moom ay taalibe lañ te mën nañu wax ne ñun moom lu sëñ Tuubaa ñoruñu comme que kaddu sëñ bi jib na moom maanaam wax sax di waaw li ñu jàpp daal mooy li sëñ bi jàpp rek màggal dem day am keneen nag moom bu ko neex wala ko neex ndax li ñu wax ne maanaam euh, loolu gis relative la maanaam kenn ku ne li mu wax moom la concerné. moom lu ko si fekk moom la waaye ñun daal li ñu mën a jàpp mooy Touba lañ nekk taalibi sëñ bi lañ euh, li ñu ñor mooy màggal bi si lañ nekk nii sax ñun ndax instant bi dara ñortuñ lu màggal Touba baax na keneen lu waay mënti wax tamit duñ ci wax lenn duñ ko wax dara duñ ko wax lenn ndax ñun murit dañoo koo xamewoo yaar ak teggin ak wax ju baax ak wax ju rafet képp ku wax leen si si si yoonu murit tamit waaw duñ ko daana sax mën nañ wax duñ koo jàppee ndax murid moom li ñu xamee mooy teraanga tereel nit jaamu yàlla liggéey ak déglu kàddu sëñ surtout kàddu sëñ bi ndigal sëñ bi. dafa taxaw ngir yàq màggal bi waaye bu ma xoolaatee ci benn côté métti woon wa ndax mënu koo yàq ndax tuuti nit daa juddu fekk fi màggal te sëñ Tuubaa dafa wax ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bis bii bu dikkatee bu dikkatee nag ma ci sant yàlla sunu borom kon bisub sant yàlla la. moom nag su taxawee na du ñëw sant yàlla moom na toog màggal gi moom ñun jekk nañ ndax ba sëñ bi dig joxe ndigal rek ñun kenn ku ci nekk ba bañ déggagul ndigal yaa ngi ne dégg nga téye sa màggal di seet nu ko nu sëñ bi waxee nga màggale ko noonu waaye bi sëñ bi joxe ndigal nag ci lañ mel ni lu wadd tëb naaw dégg nga am mbégte di seentu màggal gi bu wér waaw te incha allahu taala màggal gi mooy dàq ci màggal yu ñu mës a màggal incha allahu taala. sëriñ bi moom di xamle ne moom ab taalibe dafa war a déglub sëriñam bu fekkee ne ret nga bëgg a doon. ab taalibe daa wërta jiitu ab sëriñam ci teggin ñun li ñu xam mooy ñun lépp looy def da war a xaar ba sëriñ ba euh, wan la fi ngay jaar nga door a nga door a jaar foofu wala mu wax loolu nga wax waaye bu sëñ bi wax bu la bi wax loo wut waroo wax. ndax ñun li ñu Sëriñ Tuubaa jàngal mooy la tafaalu shay'an bi ni isni wal isnu sartun fi xabaari sha'ni bu leen def dara ci lu dul ndigal loolu mooy li war ab murit mooy wurta jiitu ab sëriñam ci lu ñu war a jëf wal lu ñu war a wax daa war a xaar ba ab sëriñam wax li mu wax mu jaar ca ak lu mën a doon ak lu mën a doon rek loolu moom la ab taalibe war a mel mu mel ne nag taalibe murid yi takku nañ ba dëgër ngir daal di lépp loo xam ne ne jëm na ci yoonu murid rawatina ku bëgg wax ci màggalu Touba gi nga xam si ko mu daal këram moom fi ne ni amul lenn lu baax loo xam ni doon ko ci roy soli veste guddalu biir naan glace yaakaar ne fi ne yaa yaawam nit ñi dafa yomb xaalis bi loolu moom fu ne lay ne bu mu màggal bëgguñu dooleel nañ sëkk na toog jaalam boobu dañuy sonal rek wax jii mu wax ci doog a xam ne sax ndek daana si wax na lu bon ci la dëkk guddi ak bëccëg suba ngoon ci la dëkk waaye giñ naa ko Serigne Touba Mbacké